gën a metti sama détention Cap Manuel la. Cap Manuel Cap Manuel la amee. foofu nga daje imam n'est-ce wala du foofu. waaw imam rëbës lañ njëkk a. rëbës ngeen a tase mais deux jours la fa def après ñu yóbbu ko Saint-Louis. Mhm. mais après fii lañ daje waat Cap Manuel dafa une semaine moom après nag si lañ ko yóbbu Guantanamo bu nekk fële. une semaine doon ngeen jot a échanger ci yenn ci ci sujet yooyu na waa imam jot nañ jot nañu waxtaan tuuti parce que euh, deux jours la def ak moom chambre euh, 7 rëbës. mais euh, man lu ma gis ci moom man je me disais que imam mi ku ko am am na enfet am am na sëriñ nit la koo xam ne euh, ci biir chambre bi tant que da doon am ay bagage dañ ko daan indi mais lu ñëw da ko doon da ko doon ko doon maye. d'ailleurs loolu bokk na su lu gën a tax gars yóbbu ko Saint-Louis parce que premier jour ba mu ñëwee rek détenu yàlla moo ko yàlla moo ko defal gars yi ñëw ku nekk ñëw di ko nuyoo di ko masawu. Mm-hmm. administration pénitentiaire gis moom imam ku ñu accusé terrorisme nga ñëw terrorisme mu ñëw gars ñëw di ko non rëbës di ko màggal ak di ko ñëw mastaw gars yi ñëw mu am fa benn aura boo xam ne mhm. administration pénitentiaire comme ñoom dañuy terroriste yi dañuy gaaw si lavage de cerveau mhm. moo tax immédiatement yàggul c'est la ñu tase ñi ñu yóbbu leen Saint-Louis ñi yóbbu leen Mbour ñi ñu yóbbu leen Cap Camp pénal mais imam man bokk naa ak moom chambre mais lu ma gën a marqué si moom mhm. moom nit yi moo ko gënal boppam lekk su ñëwee tant que nit yi lekk ñu ba suur. Mhm. moom moom imaam moom imaam. moom na nit yi lekk ba ba lekkam bëriwu nag imaam ba lekk foofu day mos rek mais lu ñëw banaana fruit yi lekk yu neex yi ñëw presque euh, waa chambre bi la koy jox moom presque day day mos rek lu si des su desee mu ne au lieu gars di ko tuur nañ ko defar ba mu rafet. Mhm. yóbbul ko yeneen détenu yoo xam ne parfois yenn chambre yi day metti day am problème problème lekk. Euh, imam daal nit ku nit ku man nit ku ma naw la. Mhm. nit est-ce que est-ce que amoon na daan na ñëw puisque yaa moroomu doomam nga. Mhm. moo la féete woon mag daan na ñëw doon la conseil ci yenn yi ak tuuma yi la teg ni mu diise est-ce que amoon nga occasion boobu noonu wala sens boobu. ci moom waaw parce que dañ doon toog suñ xëyee war waxtaan moom lenn rek xam nga man maa leen fa jiitu ma def naa fa cinq mois. Mhm. mais après moom dama doon ñaxtu rek dama doon kaas parce que moom à chaque fois soo loo wax rek moom dañ naan li yàlla moo nattu yàlla la delloo lépp ci yàlla delloo lépp ci yàlla su jeexee rek dina jeex man ba Cap Manuel c'est comme ça man parfois nga xëy kaso comme nu koy détenu dooyee da nga xëy kaso sa yaram du sa xol du neex parfois nga sipp ko pénitencier yi moom à chaque fois. ah des fois daan xaw a kiiwanteeg. gars yi parfois nga parfois nga jàppanteeg ñoom problème am si ñu yóbbu la cellule. xam mhm. parfois kaso moo mel noonu mënoo xëy chaque jour sa xol lu. Mhm, effectivement waaw sa xol day day naqari. Mhm. parce que surtout loo xam ne injustice lañ la fa indee. parfois du neex a du neex supporter mais moom à chaque fois lu ñu lay wax lu nañ delloo yëpp si. ci loxoy yàlla ci loxoy yàlla nit ku nit ku gëm nit ku gëm yàlla la mhm. moom imaam mu nekk loo xam ni am euh, kon joué na ko ci yow ci passage bi nga xam ni mais mu génnoon def ay révélation yu yu garaaw ken yi moom chambre yu mu daan nekk mhm. am na yu ñu ko daan euh, def yow mhm. est-ce que dund nga lu mel noonu ci biir prison bi waaw c'est que soo xoolee imaam fu mu nekkoon en fait euh, terrorisme dafa am ay niveau la ay niveau la prison yi dafa am niveau un booy par exemple niveau moo gën a moo gën a kii daal par exemple niveau bu gën a métti camp pénal la nekk. mooy niveau un. waa foofu moom parce que ñun niveau bu ñu nekkoon moom xaw na tane. xaw na tane vrai que tàngoon na trop. Mhm. parce que gars yi duñu lépp luy télé rajo ventilo dañ ko dindi woon man parfois sama yére yi da doon tàng tàng. tàngoor bi sama yére dama daan weñ sama kii bi tellement ñaq bi day mel ne dama ko xooj ci. ci biir prison bi ci bi. ci biir chambre ñu chambre bu ñu nekkoon presque xam nga ku ñuy toj vingt vingt presque mun naa ne sur vingt quatre. Mhm. ni am néeg bi amul ventilo amul télé tàng jër nga def fa pendant deux ans. Mhm. période tàngoor bi nii su ñëwee foofu dangay sa yaram bi day am ay taab da ngay ñaq tellement que yow da ngay sumé ko caleçon rek presque ngay dese sinon tàngoor dina la. dina la rey même ñun camp camp camp lu metti metti metti mhm. soo yëngalee gars su suñu la bëggee tiital dañ la naan dañ lay yóbbu camp pénal parce que nga calmé waat nga calmé waat parce que camp pénal foofu moo gën a métti ñoom imaam fu ñu nekkoon foofu foofu moo gën a métti hmm. ñoom imaam foofu ñu nekkoon foofu gars yi ay chinois dañu fa doon ñëw ay français pour def lan di leen di di xool euh, bâtiment yu gars yi tabax di fotowaale di fotowaale waale yi gars parce que Sénégal dafa euh, amoon ay financement étranger yu mu jotoon sur le terrorisme si lañ tabaxee même euh, benn kii bu nekk foofu foofu gaa yi tuddee Guantanamo mhm. foo xam ne présumé terroriste yi ñoom ñu ngi accusé terrorisme ñoom joxaane ñoom ñëpp gaa yi fa lañ fa lañ nekkoon ñun suñu kap kap manee lu metti metti metti campagnat moo ko gënoon metti imam nag campagnat la nekkoon foofu torture yi ñu ko doon def di def ay produits chimiques ci si si si chambre am yooyu yëpp campagnat la campagnat la xëy d' accord mu nekk moment yu difficile yoo xam ni euh, dundu dund ngeen ko ci mm-hmm. euh, prison bi sànq nga ni euh, mm-hmm. y des français ak ay yoo xam ni dañu doon ñëw di di visiter si dañ doon dañ ndax dañ doon des fois ñu waxtaan ak yéen wala dañuy ñëw rek jël ay non dañuy ñëw parfois ñu ànd ak temps Sidiki Kaba nekkoon na fi ministre de la justice mm-hmm. parfois Ismaïla Madior Fall nekkoon na fi ministre de la justice parfois wala ñu ñëw ànd ak directeur administration pénitentiaire bi suñu ñëwee dañuy ñëw foto jël ay kii jël pour wane loolu yooyu yëpp ay preuve pour wane ne. <laughs> jël seen image yéen ñi nga xam dañ leen a. <laughs> jël seen image euh, jëlale bâtiment yi yooyu yëpp ñoom dañ dañ ko doon def. ñëw foofu tout juste pour justifier. te ministre bi la ñuy àndal. en même temps ministre bi la ñuy ànd wala ñu ànd ak directeur de l' administration pénitentiaire en tout cas suñu ñëw dinañ ànd ak benn benn autorité. d' accord euh, mais ci biir kaso boobu noonu euh, ba tey sànq yaa ngi koy wax ma cofoon ci après ma génn génnaat. Mhm. Euh, pour dellu si ci kan yi ci nga li ëpp ci livre bi ci nga ko bindee ndax des fois doon nga am difficulté ay difficulté yoo xam ni doon nga ko ci am bi ngay bind ak feuille yi nga yi la doon jox ci kan la doon jóge ci ñan la doon jóge waaw xam nga man chance bu amoon dama nekkoon classe de terminale. Mhm. suñu waa kër. man loolu la loolu loolu lañ ma yàgg xamee man moom fu métti métti métti sama objectif moo nekkoon na am bac def ay études supérieures. Mhm. quatre ans yu ma def ci prison bi yëpp deux mille quinze bañ ma jàppee à deux mois des examens. Mhm. Euh, sama avocat yi Assane Dioma Ndiaye ak maître euh, maître Abdou Dialy Kane déposé liberté provisoire juge dafa bañ deux mille quinze. Mhm. deux mille seize déposé naa pour def le bac. juge bi bañ ak procureur 2017 même chose 2018 même chose. 2019 mhm. laa génn def sama bac am ko avec la mention assez bien. Mhm. mais malgré lu ma nekk si kaso bi yëpp parfois dama doon woo sama benn nijaay yàlla na ko yàlla yërëm sax Serigne Kane mhm. moom presque moom moom ma gën a motiver pour ma pour ma jàng moom moom doon dugalal ay documents ay cahier su ñëwee yow cahier moom laa doon jël parfois su ma bindee benn cahier mu fees ma jëlaat beneen cahier di si di si di si bind di bind di si bind document yi ma doon indil moom laa doon profité di si jëlaale ay ay not ba léegi kaay kaay kaay baa ngi kër ga xam naa waroon naa la ko. gars daaw ñu la jéem a vérifier sax ba xam lan nga nekk di bind wala euh, loolu moom. amul non non non loolu en fait xam naa seen xel moo du moo du dem foofu. Hmm. xam naa dañ koy jàppee ne benn élève moo fi nekk rek. mais seen xel daanu woon dem si ñëw di vérifier sama kay quoi. ba xam lan nga nekk di bind. exactement mm. mais ci ci ci ci loolu tey euh, nga jaar ci euh, jaar jaar yooyu mu nekk quatre ans de prison yoo xam ni dund nga ko. Mm. Euh, mu metti mm. jour bi nga génnee dem ñibbi foofu la ci Mbuur. bi nga duggee seen biir kër sa maam. waaw jour boobu neexoon na trop parce que man xamoon naa ne parce que dañ ma dama def grève de la fin Euh, si même jour bi. médias yi ñu ngi si doon wax xam Sénégal dëkk boo xam ne tapage médiatique soo ko defee gars yi dañuy et c'est triste de le dire gars yi su paa nga def tappage pour gars yi mun a nekk si say dossier. Mhm. quatre ans yëpp je me disais que bon xanaa naa muñ su jotee rek yàlla dina dina def ma ma génn. Mhm. mais dama gis ne ñëpp ñu ñëw fekk ma fa ñibbi nañ sama kaw gars yi bàyyi ma fa ma ne non lii mënul nekk parce que man. jeune la am na ay ambition bëgg naa relever ay ay défis yu bëri. Mhm. mënuma toog fii rek éternellement jëmale jëmale abadan. Mhm. bon si laa defee grève de la fin média yi wax si le même jour si lañ ma woo yóbbu ma ma dem defi présentation devant la chambre criminelle. une mhm. semaine après le 27 mars si lañ ma si lañ ma àtte. procureur rek def euh, plaidoirie réquisitoire am. demande cinq ans de prison après ñu jox délibéré bi le 10. le 10 avril mais man xamoon naa ne lu métti métti métti damay ñibbi parce que ku def 4 ans même soo ko tëjaatee a ans. waaw un an et quelques un moo koy dese wala ay quelques mois mu mu mhm. ñibbi. Mhm. je me disais dinaa xam sama sort soo damay ñibbi wala ma wala ma. motoli tuuti wala ma motali tuuti quoi. bon après avocat yi ñoom maître Moussa Sarr vraiment di ko remercier bu baax. parce que mhm. moom tamit sonn na si trop. Euh, waxoon ma que li réquisitoire la rek bu procureur bi def et que juge bi du ko suivre. Mhm. le 10 incha allah damay ñibbi. bon jour procès bi ma ñëw mu ñu condamné ma à trois mois de prison sursis. sursis sursis waay. te nga tëdd déjà maanaam quatre ans. quatre ans ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu. condamné trois mois de. yoo xam ne sax waroo koo tëdd. loo xam ne sax. waruma woon commissaire dossier bi sax commissaire de sax dossier bi waru fa woon yegg euh, sursis war a woon tëdd sax kaso. loolu hmm. suite bi loolu lay loolu lay loolu lay firndeel. après ba ñu ma bàyyee guddi gi toog naa Dakar quelque temps à Médina si sama benn tante. moom hmm. tamit si si si nattu bi laa ko xamee mu doon liggéey hôpital Dantec. Euh, mu jàppoon si man trop sonnoon si man trop après ba ma jógee Médina nag si laa dem Mbuur ñëw fekk fa sama ñoom maam vraiment mu nekk. moment boo xam ne moment bu neex la après métit bi yi nga ñëwaat di entamé waat beneen page. Mhm. Euh, gis sa famille ñoo xam ne quatre ans gisoo gisoo woo leen. Mhm. soo leen gisee woon ci salle de visite nga leen gisee ci conditions yi métti. ba mu ñëwee gis sa maam vraiment kontaan noon naa trop euh, bokk na ci événement boo xam ne euh, lu ma gën a marqué sama dund la. ci la mhm. bokk ñëwaat retrouver waat tout le monde ñëpp nekk. si jàmm nga ñëw mm-hmm. gisaat leen. loolu vraiment yéen kàddu nga la njëkk a euh, dénk la ko. kàddu njëkk a yëkkati man kàddu yooyu ba léegi kàddu may motivé la parce que. Mm-hmm. Euh, ba mu ñëwee lu mu njëkk a wax euh, luñ la teg metti na tooñ la. Mm-hmm. mais buur ko jàppee dara koo gis nit ku baax ku ne am na jaar na si jaar jaar bi. mu ne ma demal jàngi continuer demal jàngi nga continuer say say sa sa étude mhm. parce que sa maam moom rêve bu gënoon maximum moom à chaque fois dafa bëggoon ba nekk cadre ci administration ci ci moom loolu moo ñàkk a euh, insertion bi ndax yomboon na ainsi di cadre ñu di ci la du mel noonu nga yaa ngi koy wax sànq ci biir kaso bi am na ñeen ñoo xam dañ leen commencé daw ngay woote sax seen profit naan la noo bu ko jël mhm. bi nga dellu siwaatee ndax insertion bi yombo yombaatoon na insertion man sama insertion jafewul woon parce en fait au fur et à mesure ñu doon dem. Mhm. su bañ jugee Imam Ndao gars yi xam ne lii ay tooñ la. Mhm. Sénégalais yëpp surtout waa Mbour maa ngi remercier jeune jeune euh, jeunesse mbourgeoise yëpp. Mhm. gars yi jóg nañ doon manifester pour gars yi pour ñu bàyyi ma. après gars yi xam nañ ni lii ay caaxaan la parce que téye nit ki quatre ans àtte ko te Imam Ndao gis nañ ko trois ans lañ ko téye après setal ko ne ko defoo dara. en fait gars yi di ibbi seen xel yi di gis ne affaire yi. affaire ay caaxaan la quoi am amul dara loo xam ne état am na ko lu lu solide après waa Mbour yi ñoo ngi doon jóg di xeex ay mouvement Mbour justice ay hmm. Mosem gars yi bëri mouvement ay société civile bi ñu si bëri jóg taxaw si. Hmm. Euh, ba ba ma génnee tamit loolu bokk fekkoon na lu gënoon lu ma gënoon facilité la fekk na Mbour waa yëpp ñu ngi doon xeex pour ma pour ma génn. Hmm. ba ma génnee am na ay bonne volonté yu si bëri yu si yu si yu si jàppoon. sama nijaay yi aussi ma ngi leen di remercier bu baax euh, ñoom Ndiaga Diop ak Babacar Diop ma ngi leen di sant. ak sama ñoom maam sama ñoom papa ñëpp parce que ñëpp jàpp nañ ci vraiment. macha insertion bi nekk loo xam ne après yomboon na trop si si man. ba ba ma génn après une semaine rek laa def après delluwaat lycée reprendre sama sama étude. Mhm. après trois mois laa def après am sama bac mention assez bien xam nga loolu ku inser insertion bi. su mel waaw waaw yooyu yëpp du ma ko du ma ko def mais sant yàlla rek. Mhm. mu nekk défi boobu awoon solo boo xam ne ñu bu ñu ko déggee sax wala am nu ñu meloon ci ñun.